billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuubaa xaadim rasul sama sëriñ sama la di leen nuyu yéen waa mbokki aadama doomi aadama yëpp képp ku ku nekk ci àddina bi lépp rek Selbé Ndom mi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay dafa am euh, ay ay ay ay yoo xam ne kenn xamul kenn xamul lañ lañ ay samba booy samba surabaali mënuma leen a wax sax ñii nan laa leen war a tuddee ndax man Selbé Ndom dama jotewut ak kenn dara maa ngi toog ki sama biir kër gi bañ naa ko ba sama saal sax su ma fa duggee damaa am gan toog ci sama kër gi dimanche ci guddi ñoo xam ne dañoo yore ab 4-4 deux portes dafa am waa jii ngeen di gis ci vidéo yi caméra surveillant bi ko jàpp moom moo njëkk waaxu ñëw jël ay butéelam ay butéeli saafaraam di sotti ci sama buntu kër gi noonu la 4 x bi daal di ñëw taxaw booba am na ñu nekkoon ci biir 4 x bi ñu nekkoon ca ginnaaw di dox daal di ñëw loolu ngeen gis noonu ma yaakaar ne bu fekkente ne sama kër gi moo tax ñu def ko kon ñoom yàq nañ seen loxo ndax ku mer da ngay kalaame yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tekki sëriñ Tuuba xaadimu rasul moom mi nga xam ne damaa toog lu ci moom xool leen ñaawteef gi ñiy def góor ñu toll nii jigéen jur leen di seeni ndey ñu am ay jabar di ay soxna ñu leen di jurali doom ñu am ay rakk ñuy bokkal ndey ak baay wala ay doomi baay mën a seet jigéen joo xam ne mi ngi liggéey jàpp njàmburam yàlla def na ay waajuram génn nañu àddina amul borom kër lu dul di liggéey di def ci ay njabootam ñu mën a jël seeni xaatim bind seeni bind ñëw ba ci kër gi di ko fi sotti ndax ñii am nañu jom kalaas gii nag àdduna bi bu yóbboo ngeen xool leen vidéo bi wër leen leen bu baax a baax gis nga genre yi ñooy dem ci ci niiw yi nga xam ne yàlla jël na leen doom mba suñu mbokk doomu aadama yi nga xam ne ñooy aji way dawli yi di leen gas di xotti seeni càngaay lii lu ñaawlu naa ko ñaawlu naa ko ba ci kanamu yàlla yonent bi waaye de bu fekkente ne man taalibe Serigne tuubaalaa laa Serigne Touba nangu na sama taalibe li ñu fi def du leen jëriñ dara ndax ñoom mun ñu maa yàq ndax ba sama waajur wu jigéen di liggéey le liggéeyal sama waajur góor ba ci am am selbe ñëpp di tudd boobu seeni waajur ñu tëdd ca basang amuñu fu ñu tëdd ndax liggéeyaluñu suñu baay seeni baay ponkol yu toll nii ma ne man sama waajur wu jigéen ba muy liggéeyal sama waajur wu góor. ba mu ba mu mën a am am selbendoo moo xam ne àdduna bi koy dégg boobu ñoom seeni waajur yu jigéen amuñu woon fu ñu tëdd ñu ko doon tëdd ca basan dégg lu ñu woon seen waajur yu góor duma seen moroom gis nga duma sa moroom kenn du ko wax danga koy jëfe ñuy gis sant naa yàlla julli ci yonent bi sant Serigne tubaa man xam man Selbé Ndom ba tubaa nangu Touba sama taalibe tabaarakallaahu sant naa waaye damaa bëgg ngeen xool ñaaw teef gii xool leen ñaawteef gii ay góor yu ne léng ay ponkali góor war bu fekkente ne ay sëriñ lañu war nañoo mën a def loo xam ne ku ñu ñaanal la nga bëgg nga am ko su boobaa danañ mën a am lu ñu dunde wala ku feebar ñu faj ko jën jël seen loxo di def ci ay social waaye xam nga ni ñuy tekkiwuñ dara de ndax bu ñu mënoon kon du ñu yegg si sama buntu kër gi barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nañu xam ne nag selbe selbeem yàlla la selbe selbeem yonent bi la selbe selbeem Serigne Touba la xaadima rasul na ñëpp xool vidéo yi na ñëpp xool vidéo yi gis ñaawteef bi ñuy def dimanche ci guddi dafa ne gisuñu leen di dinañ weeru ñoom xam nañ ne subhanahu wa taala dinañ leen weer barakati laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah bi may dafa nekk ci man jërë ngeen jëf waa àdduna bi seet leen ñaari ñi nga xam ne ay ñaawteef rek la ñuy def ñi ñoo ñàkk jom góor ñii ñoo ñàkk jom billaay sëriñ si ñoo ñàkk jom ñàkk nañ jom trop xool leen ñu ñàkk jom ñi xool leen jaami góor yi nga xam ne dañoo jël seen bët di ko teg ci jigéen ji nga xam ne dafa takk ndigam di liggéey doon doon batant tabaarakallaahu macha allah ndoom séeréer ndoom de ci xoyaan surtout wàllu yu bii bu yeboo ñu ngeen xool ko rekk bàyyi ko nii li ma mel yàllaa ma ko def du téere bu ma takk du garab bu ma sangoo yàllaa ma bëggal boppam ngeen xam loolu bu baax ni ngeen di ñàkk jom